naal ko ci saison 2018 2019 ba mu fi nekkoon doon saison ngay a yokku mbër ya xaari combat ba léegi mënagu koo am ka fi yor couronne roi des arènes Modou ba léegi couronne baa nga yàgg ak moom te bërewu ca li ni moo waral journal ba xëy sampal ñu cinq questions juróomi laaj yu saf sàpp la journal ba laaj ba ci njëkk mooy daaw danoo année blanche est-ce que année blanche saison bii ñu nekk ana moo xam ndax danañ ci bërëm déet beneen laaj ba mooy Modou Lo sa couronne xarañ loola nouveau roi des arènes couronne ba ndax dana yàgg ak moom combat ba muy dëgmal digganteem ak Ama Baldé ndax Ama dana ko bàyyi couronne ba déet beneen laaj ba ñu samp ca Ama Baldé mooy Ama sera-t-il le roi des arènes de Pikine gannaaw ba ko Tyson doonee Eumeu Sène doon ko est-ce dana nekk troisième roi des arènes ba beneen laaj ba ñu samp am déet loolee mooy juróomi laaj yi journal ba laaj bëgg ku ko ca leeral laaj ba mu njëkk a samp ca saison blanche ndax dana amaat renam déet lañu ca mën a xamle mooy liy raam ci ñag bi la jëm juróomi weer a des ci saison bi te mbir mi xeeñagut neex fi mu nekk nii nag saison blanche moo gën a jege ko saison bu ubbi bu dee mooduloo ma ñuy laaj ndax dana téye couronne ba am déet xanaa balaa ngaa perte couronne nga bëre bile combat bu amul ana naka lay perte couronne am Ama Baldé ndax dina nekk troisième roi des arènes ca Pikine a a leer wii kuloo coow la ne amateur yi bu ñenn ñi génnee ne bëgg nañu ko ñeneen ña génn ne arrangé leen ñi ngànk làmb ji ba ñu ko junjee ba léegi waxaatugu ci dara lu leer li fi lëndëm lépp nag nañu xam ne mbas mee ko lëndëmal waaye du kenn waaye bu dee mbiri huis clos moom bëri nañu nekk ci làmb ji dañ koo ragal bu dee Ibrahima Faye patron Buzz Pro la xam ne mooy jarta ragal ndax solution am na huis clos boobee buñ ca duggee damaa bëgg ñëpp xam ne yi dañu koo ñemewul ndax jafe-jafe ya ca nekk da ngay yoon la nu dal muy diggante Balla Gaye Gris te boobee moo nekkoon jamono jiñ koy njëkk di testé mënul woon ñàkk ndax lu bees faaw nga am loo ci comprendreul waaye ba mu weesoo yeneen événement yi fi jàll lépp nickel combat Lac de ak Boy Niang ko réussir bu Gris 2 ak Reug Reug dañu ko réussir Eumeu Sène ak Modou Lo waruñu ko woon def waaye bañ ca duggee lépp nickel bile combat bañ ca duggee def nañ ca lu kenn dootul fàtte que promoteur digganteem daan ngéyilum daan Abdou Diouf daan ak Ousmane Diop kooku kenn mënu laa doon champion ku la daan ñu ne Balla Gaye 2 Santa ñi ngi lees de ak Rock Mbalax bile mbër ku ko teree doon champion da koo bañ li waral promoteur yi zappe ko kenn tuddatu ko kenn laajatu ko kenn bërelootu ko loolee la journal ba xëy sàmpub laaj léeg la journal ba xëy sàmp ko fësal ko mooy écurie xam-xam bu père Birahim Ndiaye bile écurie mu meloon ak la ca nekkoon ci journal ba xëy fësal la leader ya sàkku xam-xam bi ñu xamee woon ay champion yu mag bu ci mel ni Moussa Dioum saalum-saalum ba ci pammoorloo boobi écrit ay leader mooy acteur agogo Boy Diop Mori Cargo ku wax sàkku xam-xam bu père Birahim Ndiaye fi nekk nii yi leen mbër ngay tudd écrit ba ñii la am ñii lay sagoo ñii la bëgg a def champion fa nuy jeexale mooy ca ji liwaadu may interpeller le ministre des sports Ba di ko yekk lu mel ni xamee ca te politique u deux poids deux mesures am bi mu teg ko ci suuf mënta joxe ordre ñu reprendre yeneen sport yi ba pare mu téyee suñu sport bi te ko reprendre bu yeboo nag ges suñu balaa moo gën a metti jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah